des nag door gannaaw ubbite gi mu di euh, penco ndëpp mi ñu woote taxawal nañu ay commission jëm ci assise euh, bi ñu jagleel wàllum yoon fii ci réewum Sénégal ñu koy waxtaanee euh, commission ak ay sous commission la ñu taxawal assise yi dina woy niki tey ji ci suba maanaam waxtaan wa sa centre international bu conférence bu Abdou Diouf bu Diamniadio liggéeyee dana woy ba altine pose nag dana ci week bi maanaam njeextalu ay bés bi restitution bi maanaam tënk mi dëxëj mi ca la ñu fa waxtaanee talaata lay doon kon ñaar ci ay axe mooy gën a fët ci waxtaan ba mu di ay réforme saytuwaat waaye it méngaleex jamono ci nu wàllum yoon jëm ci juróom-ñeent ci ay euh, thématique ba tey euh, ci assise yooyu njiitu réew mi président Bassirou euh, Diomaye Faye moom moo présider lancement wala ndorteelu assise de la justice yooyu mu ngay sàkku euh, ñu amal waxtaan wu nga xam ne daanaka lépp dafay tegu ci yoon leer nañ ci bopp askan wi dindi lépp lu nga xam ne rek ak joxoñante baaraam la xiicoo mballoo ci maanaam wàllum yoon fii ci réewum Sénégal amul kenn ku ñu tuumaal wala ku ñu teg bët jëm ci li nga xam ne moom mooy waxtaan wàllum yoon googee visé wu ñu kenn Bassirou Diomaye Faye mooy ni waxtaan déggoo euh, ut solution loolu ci boppam mooy ko tax a jóg bii rek euh, assise assise yooyee nag daanaka ñeenteelu édition bi lañ ko amal ci ñeenteelu édition journée du dialogue national ñu bëri teew nañu fa ñu di kàcc ànd Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. république jël ñaar fukk fan ak juróom-ñett ci weeru mai jagleel ko wàllu dialogue fii ci suñu réew. mu tekki ci moom ne dafa bëgg jël lii di diisoo def ko mode de gouvernance pour ausculter identifier ses forces et faiblesses et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et à améliorer ses performances. yooyu leen daje di ay assises yu thème bi ñu wékk ko ci yeesalaat li nga xam ne moo di wàllug yoon di justice nekk nag moment yu am solo ci doxalinu justice fii ci suñu réew président de la république gën a dëggal na mu jotee ware it ñu daal di koy daal di jëmal. le droit du travail et le contentieux administratif autant dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice. professeur Babacar Gueye la ñu tànn mu nekk facilitateur bi ci yooyu lekk assise xam ne sax jébbalug liggéey yi ñu ngi koy daal di amal ñeenti fan ci weeru juin bi di ñëw. bokk na sa ña teew ci yooyu la assise njiital Africa Jom Center euh, bokkit ci kuy taxaw euh, wàllum démocratie fii ci réewum Sénégal ak ya ak yelleefu euh, doomu aadama wàllum bon gouvernance bokk na ci lu koy dooleel fii ci réewum senegal Alioune euh, dafa gis ne waxtaan bi ñu wootee euh, daanaka ku si nekk am ci kàddu bu nga xam ne mën nga ko sa def loolee du euh, def lu dul gën a dooleel sunu wàllu yoon dafa gis ne it euh, sunu autorités yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk am nañu euh, xementeef wala bëgg-bëgg bu nga xam ne ñu ngi koy wane jëm ci euh, lu suqali réew mi rawatina lu doxalin gu aw ci yoon gën a ñoŋ Alioune Tine ay kàddoom Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye ñoo ko taataan. waaw man maa ngi koy rafetlu ndax ñëpp a ngi fi boo jëlee syndicat yi ñu ngi fi boo jëlee parti politique opposition pouvoir ñu ngi fi institution yi ñu ngi fi boo jëlee artistes yi ñu ngi fi. rappeurs yi ñu ngi fi anciens détenus yi ñu ngi fi lu baax la lu am solo la ñuy waxtaane tamit lu am solo mooy yoon ndax yoon su fekkee ne dañ ko jalgat yi day indi ay fitna fitna yooyu dund nañ lim li li nga xam ne sax moom mooy wane fitna yi mooy suñu président ak suñu premier ministre kaso lañu jóge pour jël pouvoir bi pale ñoom ñii de bés bu ñu lajjee rek kooku moom musiba lay doon pour réew mi donc amuñu droit ñu laj waaye dañ jàpp ne mënoo jël nga tey tey nga defar rek lépp daal di jékki sotti baax nga di jeexal nañ déedéet justice bi mu ñu bañ ko politiser parce que justice bi problème yam ñëpp mooy bu ñu amee ay leader politique yu ñuy juge loolu bu ñu ko réglé nga xam ne leader politique bi ak sénégalais bi ñoo yem yoon mooy dox loolu nañ fexe ba nga xam ne mooy am. mu ngoog si moo PFA ñu gis ne assises yi waaye politique yi ñu ngi fa société civile bi euh, mi ngi fa ñi yëngu wala seen xel ma ci wàllum yoon également ñu ngi ci day gën a dooleel euh, crédibilité bi nga xam ne assis bi war na ko am. bien sûr parce que comme ndëpp la ñu woote ndëpp moom réew mi yëpp la soxal parce que ñun Sénégal ñoom moom suñu système judiciaire juge yi ci askan wi la ñu jógee. askan wi mooy justiciable yi kon war nañoo mën a daje. war nañoo mën a daje waxtaan ci pénc moo xam ne lañ cay séentu mooy comme ni ko gars yi waxee jub jubanti jubal. et jub googee war a mën a jóge ci ñii nga xam ne d'abord ñoom ñoo téye système bi di prononcer le droit di àtte di poursuivre nit ñi réquisition à charge wala à décharge au nom du peuple ñoom njëkkee ci ñoom. kon jot na amaana ñu defar seen taxawaay taxawaay également ci ñu xool ndax exécutif bi ñi nga xam ne ñi nekk ci bopp réew mi am nañu cër ci biir justice ba mën a influer ci yenn décision yi ñu xoolaat également ban taxawaay lañ ciy mën a am parce que gis nga depuis très longtemps rawatina at yi ñu weesu jamono jii ñu weesu yàgg nañ ko fee ngat exécutif bi loxoom ci biir at tey rawatina bu dee ay dossiers yoo xam ne dafa laale politique loolu yàgg na nekk coow li ci des tamit jubal redressé par rapport ak yu bëri yoo xam ne dafay am parce que très souvent on a l'impression que néew di doole yi ñoom ñooy ñoo ñooy gën a souffrir ci jafe-jafe yi nga xam ne moom moo am ci wàllu àtte ñoom la ñuy gën a sentir ne amaana ñoom la ñuy teg yi gën a métti ñi nga xam ne lañ leen toppee moo di benn ginaar benn nen ñaari kilo ceeb yu ñu jël amaana ñooñu boo xoolee seeni àtte ak ñi nga xam ne ay boromi tur lañu ñi nga xam ne mën nañoo làkkatu ci ginnaaw parti politique bu am doole ñi nga xam ne am nañu ñu nekk seeni i ginnaaw ay borom barke ñooñu souvent tu as l'impression qu'il y a deux dans ce pays et loolu nag moom moo war a dañ impression boobu dañ également dañ ci beneen côté nga xam ne mbir dafay ne fàng mais après kenn du xam kan moo def doo ci dégg benn poursuite wala même bu ci justice dugalee loxoom après yëf yi fa lay yem dootoo ci déggaat dara doo xam kan moo def ak ku deful Euh, yëfi tàbbi noonu dem géej donc euh, jeetaay bi je pense que war nañ cee mën a profité donte nag am na yu bëri yoo xam ne jotoon nañ ko fee waxtaan parce que am na yii genre yii waxtaane woon nañ ko fii ba tënk ko ci aéroport en 2018 mais faudrait pas que ñu tombé waat dans les mêmes travers du def pour def du def parce que beneen régime moo fi def mais parce que dañoo war a def parce que réew mi foofu la tollu dañ koo war a mën a soppi li nga xam ne moom moo fi ne rawatina ci système judiciaire bi li ci des nag ña bokk ña bokkul ña ca waroon a bokk te bokkuñu ci ña ca bokk ñenn ñi jàpp ne waruñ ci woon bokk lépp man jàpp naa ne Sénégal la l'essentiel est que justice bi ñuy am ëllëg ak ku ca mënti wax ku ci mënti influence yi justice ba ñuy am ëllëg na nekk justice boo xam ne ñëpp dañuy ne lii amaana moo fi nekk ci biir mi ñëpp war ko mën a rafetlu euh, liggéey bi nag jeexagul euh, dinañ ko continuer mais nañu fexe rek ba vraiment yenn problème yi nga xam ne def fi daan am ci biir réew mi muy jóge ci ay dossier politico judiciaire pour man yooyu yëpp na wàññeeku impunité bi également na wàññeeku président de la république wax na ko du ne dañuy toog waxtaan pour wax ne diw moo coupable diw moo capable diw moo def lii diw moo def lële peut-être loolu war nañ ko weesu li koy firnde mooy récemment loi si moo fi jaar ba ñii nga xam ne ñoo fi ne tey jii mën a mën a mën a mën a toog donc loolu sant yàlla la pexe yàlla la ñu ko koy sante mais li am solo mooy vraiment nañu fexe ba yenn yi ñu doon dégg ci biir réew mi mu bañ amati ay dossier impunité ak yeneen ak yeneen ak yooyu yëpp reddition des comptes d'accord mais vraiment pas chasse aux lu am yi nga xam ne warees nañu ko waxtaanee ci euh, assise yooyee ci wàllum yoon ndaw ñi am nañ ca wàll ndax yenn saa yi nga gis euh, ndaw am xiicox mballoox euh, wàllum yoon ñu war ko taxaw loola it bokk na ci thématique yi ñuy waxtaanee mbégte la ci secrétaire général bu syndicat national des travailleurs éducateurs spécialisés Baba Lissa Ndiaye dafa gis ne secteur bu justice juvénile ñu jagleel ko tout tànk dinañ ko gën a améliorer bu ñu génnee ci ndëpp bu ni ay kàddoom ak Cheikh Seck